Sow Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax président daayira bi di nuyu oustaz Kaawu Kobar ñu ngi koy nuyu bu baax ak oustaz Souleymane bi nga xamante ne nii moom ci moom lañ jëlee micro bi ñu ngi koy nuyu ak mboolem oustaz yi fi nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit euh, tàggkatu yonent yi ñoom xalifa ak yi mu àndal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sunu yaay yi toog wax dëgg yàlla ak euh, ndawi daayira bi. nuyu monsieur le maire ñuy wax ci kàddoom nag wax dëgg yàlla comme ni ko xalifa waxee léegi daanaka tey guddi gi dafa xaw a xat waaye maire ne lu mu xat xat xat xat mënuma dem fenn te dewuma ci ñoom xalifa ndax daayira boobu dama faa bokk daayira boobu samay xale lañu samay ndaw lañu kon bu ñu xewlee wax dëgg yàlla bu keneen soxlaa euh, ñëppay ñàkk waaye ñoom duñ ñàkk

wax dëgg yàlla di rafetlu waat bu baax a baax daayira bi ni muy doxee ndax tey yaakaar naa ni ku fi ñëw maire yaakaar naa ni lii dal na ndax ñi fi nekk ñëpp ñi ci ëpp ay tuut tànk lañ ay xale lañu te yaakaar naa ni tey jii ñoom ñëpp mënoon na leen fekk seen kaw la ñu war wala ñu nekk ci leneen waaye amaana xam nañu tey njariñu guddi gi xam nañu njariñu guddi gi moo tax ñoom ñëpp ñu ñëw toog macha allah. Euh, di teewlu li fiy rotee tey kon ñuy ñaan ci turu meer lépp lu fi nar a wàcc ci xéewal lépp lu lépp lu guddi gi ëmb ci xéewal yàlla ndox fi yàlla wàcce ci barke Seydina Muhammad wax dëgg yàlla lii dal la te kontaan nañ ci trop te yaakaar naa ni lii rek moo mën a jàppale monsieur le maire ci commune bi ndax lii bu amee xelam dana daal ndax am na yu fi xewoon boo xoolee maire yi fi gënoon a nekk ñaari fan ñett yu ne ñu woo leen téléphone ne am na ñu jàpp police maire ñëwa dimbali ñu maire ñëwal dimbali ñu waaye macha allah moom ci ayam loolu dalu ko bu tëddee dana nelaw ndax xam na ne njabootam ci lii lañ nekk kon macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan oustaz yi fi nekk ñu gën a sànni ñaan ci dëkk bi yàlla wa wasal fi barke yàlla wàccee fi xéewal te tasaare ko ci biir dëkk bi yëpp ci barke yonent yàlla Muhammad maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yi. maire li mu wax pour ma wax ak ko ëpp na lii waaye nag euh, yóbbante moom dafa xaw a doy waaye daal lépp lu ci jub li xam ne ci yàlla la yàlla suñu bon la waaye li ci dëng nag ci man mu doy mii la man ngi jégalu waat bu baax a baax asalaamaaleykum wa waaye tàcc leen ko waay. Thank you. Allah

Yeah.

Ana ana يمشي يا سبابك يمن خلف أمامك يمن إلى xalifa yaay dama jaay wu nu leen baye si bay si bay xalifa yaay dama jaay wu nu leen baye si bay si bay sirun saar sirun saar ale la daan abi saxa demoon na daaro mu jaar yara jaar fa barka amoon jaar fa daldaga ngay da yóbbu na ngay de dakk leen seti maaga seen di tuur ba def da seen di barka tuur I'm gonna kamu pinjar motor mewah banyak yang lebih yang sama Fatapa dia aku Barum dari bini Fatapa dia aku banyak Ayo halus betul lagi Tusimu biras dan badiri Sirir dari hati Fasulah dia aku وبئس قد أسرتموه من السبل أدخانا لا دي لا دي لا دي لا دي لديكم بجمرتي عادت جودكم وعشتم أيام المرسلين وخير Thank you.

Get up!

الذي أمر الله شمس الحاج مالك مامو نسي أمر الله Abdoulaye Madior Ndiaye mu yóbbaale góor ñëpp géew di seedeel ne mbooloo mi rek muy président boo xam ne manqué wul dara lépp lu daara bu soxla taxaw la ci kon nañ ko ñaan ñaan ko yàlla yàlla guddal fanam yokk kàttan bi yokk wér wi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa lu mënta ñàkk nag foog mu am ndax ku gis baas bi nu mel xam ne du daayira bi kase waa koñ bi ñu ngi ci buñ ne waa koñ bi suñu yaayu tedd yi la wax ñii amuñu seen fay yàlla xam na ko waaye maa jox dañ lay seedeel bu ñu duggee ci kër kenn ku nekk dugg yëgal la bés bi balaa ñoo geesu nga am loo ñu jox ñun ñëpp nag ku ci nek bu duggee yëgal la bëss bi di nga yëkëti sa poos yëkëti xaaliss jox ñu te yalla rek tax mo tax ñu koy def buñ sañoon nak kenn ku nek nañu jaar sa tour waye temps bi moko dul maye di contane ñoom ñëpp ñëpp ñëpp señ Mor mais ñu koy contane bu baaxa baax indi na teranga yu bëree bëri bëri yalla na ko yàlla taxawu yàlla yokk bi ak man man gi. di nuyu Baye Dame baax di nuyu Kaw moom it bañ daara bi yoon fii ñu dem gis moom waxtaan ak moom te daara yëpp benn la ñu boole ko def ko fii moom it yàlla na ko yàlla sàmm ba mu ñëwee ba léegi dafa rafet te yàlla yàgg rafet di gërëm it waa daayira bi bu ñu nee waa daayira bi mooy suñu mag yi ñi nga xam ne saa bu ñu gëstoo ci basan bi gis leen oustaz yeeg ñoom Médoune ñoom alfa ñëpp rek bu ñu limee dañuy juum di nuyu tamit jigéen daayira bi ndax daayira dafa metti chaque instant di nga laaj cotisation waaye yaay booy ñu xamal leen daayira bi programme yu am bëriwul pour ñi nga xam ne seen doom yaa ngi ci biir daayira bi ñun lii lañu am guddi laytul xadri ak gàmmu gi ñuy taxawal daayira bi beneen ku ci nekk xam ne bala muy coupe du monde muy gàmmu Tiwaawan loolu suñu programme yooyu ñu koy bàyyi xel baax a baax keneen ku sa doom ñëw di laaj leneen loo xam ne méngoowul ak lu suñ daayira du ci ñun feneen la koy def yi loolu tamit ñu koy leeral baax loolu la ñëwoon nag ci kàddu yi di jégalu bu baax a baax nag ndax waroon nañu wax lu ëpp lii wante nag temps bee ñu ko mayul di jégaluwaat bu wér asalaamaaleykum wa يلا يلا فايلة برفدنا يلا يلا فايلة حمنا دني جوح شيخ محمد الحبيب بارك الله موم ينساي بنو قديه ولا بنو نيو دائرة موم ويكيو ويكيو وقتان بي يفكو تفيل وخام نيو بنو نيو ديكو نفين وانا شكو جابنا بو مولو ميتيوه دايتيرم وجيني كو جوحوكو بسم الله وحده الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره بقدر عظمه ذاتك في كل وقت وحين الى يوم الدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم رضي الله عن شيخنا ووسيلتنا شيخنا أحمد التجان شريف رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي آمين ثم رضي الله عن شيخنا ووصيلتنا وبابنا في طريقة التجانية الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي آمين أيها المحاضرون الكرام نحييكم بتحية الإسلام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي جناب سنتي الذي جلتي يونتي بصلى صلى الله عليه وسلم أقوى كرب أقوى صحاب أقوى صحاب يبقى ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal xaq di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo président mu yóbbaale ñëpp nuyoo nuyu sëñ oustaz Souleymane ñoo ngi lay ziar baax yaa oustaz di ziar jigéen ñi fi nekk ak xale yëpp di wax ne rek dañuy gàttal rek ndax wax moom na gàtt rek te am njëriñ bu ko defee ñëpp jëriñ mu mel ni ki dañuy laylatul qadr maa ngi koy wax keroog ci suñu jàkk jële ñu dañ koy dégg rek guddi ndogal guddi ndogal guddi ndogal lan mooy laylatul qadr guddi la boo xamante ni si benn guddi la woon ci biir guddi yi waaye li ñuy wax ni mbir mu xasse ba am bu période bu mu amé bu délousé ñu lu tubaab naan anniversaire lool mo waral ñu koy def guddi googu la yàlla subhanahu wa taala jele won alquran karim ca lawxul mahfuz ngir toxol ko indi ci baytul izzati guddi la laylatul qadri la woon moo waral nga doon jàng bal huwa qur'aanu majid fi lawxin mahfuz nga jàng nga jàngat wa innahu la qur'aanun karim fii kitaabin maknun boobu mooy bi mu toxoo ñëw baytul izzati ñu ni soixante-dix mille malaayika ñoo ko escorte andi ko fa moom alquraanul karim kon bu ñu déggee laylatul qadr nañu xam ni anniversaire u alquran karim la ndaxte guddi gi dafa làmbo loo xamante ni si waxuma la ahadis si ñëw waaye yàlla da cee wàccee aw saar bu buy wonee ni guddi la gu màgg ndax yàlla daf ñu njëkk junj ci alquran ni inna inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka loolu lañ njëkk junj bañ wax kañ la bi mu dawaté bu ci yag sa comme que am nañu curiosité xam kañ la mu ñu ina anzalnahu fi laylatil qadr moom alquran wàccee nañ ko ci guddi dogal yi mu ñu yëndu bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma adraka ma laylatul qadr da xam nga ni sax lan mooy laylatul qadr ni ko ah suñu borom daal ñun jox nañ la suñu nopp jox la suñu xol mu ni laylatul laylatul qadr khayrun min alfi shahr loolu rek jaroon na tax nit daw bay bëgg dee ngir ngir topp guddi googu mu ni guddi googu moo gën junney weer junney weer gu nit jaamu yàlla ñu nangul ko ko guddi googu nga jaamu ci yàlla benn guddi googu nga taxaw jaamu ci yàlla yaa ngi am yoolu ku taxaw jaamu yàlla quatre-vingt-trois ans quatre mois mooy mooy junni junni weer quatre-vingt-trois ans quatre mois yoo xamante ni nit jaamu na ko yàlla yàlla nangu ko ko yow benn guddi boobu boo ko jaamoo yàlla yaa ëppale kooku tiyaaba kon julli dana jafe ci mor trop ci moom mu dugg safara ci xeet yi fi jaar yëpp benn xeet moo ko am muy xeetu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbooloom yonente yi bëggoon nañ ko am amuñu ko seen xeet yi amuñu ko kon war nañu xamaan ñu ne lan lañu am lu mu doon lan la li gën a soññaate njaboot gi teg leen ci alquran ñu jàng alquran bu baax xam ko ndax zone bi ñu nekkee mën nañu wax ni am na ay daara alquran waaye boo xoolee xale yi su bëri buñ jàngee tut dañuy bàyyi nekk ci mbedd bi di taxawal ñu gën ci góorgóorlu surtout suñu suñ côté banlieue bi toujours loolu la ñuy xase nañu góorgóorlu fexe ba xale yi am alquran nañu fexe ba buñ jàngee alquran kese buñ ci yem nañ dem jàngi fiq en même temps ñu jàngi école boole ñaar yëpp baax na waaye ñu góor góorgóorluwaat xam li ñu am lu mu doon mu ni guddi gii tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha dafa am ay malaayika yu wàcc malaayika yi nga xamante ni ñoo jële woon alquran ca fi nga xamante ni moom mooy lawxul mahfuz indi ci baytul izzat malaayika yooyu dañuy wàcc ci kaw suuf di ñu ñaanal salaamun hiya xata matlail fajr dañu ànd ak jibril alayhi salaam ak ruux mooy ruuxul qudsi da ci nam ruuxul mooy jibril alayhi salaatu wasalaam mooy ànd ak malaayika yooyu ñu wàcc ci kaw suuf di saafoonteeg ummatu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñu ñaanal jàmm ñun xeetu sayyiduna muhammad sallallahu am na ci beneen xadis bu wax nii malaayika yooyu bu ñu laalanteeg ci yéen kenn rek wala yéen ngeen fexe ba laalanteeg ñoom rek ku leen laal sa yaram xaram na sa wala yàlla nañu yàlla dëppale guddi gi ba ñu daj guddi gi ñu téye kursi bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu bëri def ko ay azkar ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu mu doon suñu mujjum ndaje yal na yàlla defaral ñu tawfiq zahiran wa batinan fi diini wa dunya wal axira assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kàddu yi am na solo amatina solo sax la ñuy wax ni mu gàtte noonu la amee solo yal na yàlla wut nu fayal nu la ngeen di fay yow mënu nu laa fay yàlla rek moo la mën a fay yàlla xam ne ni yan saa yi ñu wut taxaw taxawaay wu rafet boo xam ne ñun mënuñu ko nit lu mu la defal te mënoo ko war nga ko sant bu njëkku teewee yal na yàlla fay la yal na yàlla taxaw la ku am xam-xam la am yar yal na yàlla yokk sa xam-xam bu dara jënd bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa dañuy jox prési mu waxtaan ak njabootam parce que li fii xew yëpp bu demee bay waaj a jeex lañ koy jox kàddu te buñ ko joxee kàddu day fekk mbooloo mi tasaaroo ba li mu bëgg a wax lépp du ko mën a wax mu mel ni tey am nañ tuuti temps dañ koy jox mu wàccee ay kàddoom kanamu ñi nga xam ni moo leen jiite bu noppee rek incha allah ñu toftal ci la ca topp bismillah asalaamualeykum wa rahmatullah eh, ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu ñu jiital ci imaam Taybuwa di ci toppal chef de quartier bi doonti teewul di nuyu oustaz di nuyu mbooloo bi mu àndal di nuyu alaaji Cheikh Mbaye nuyu waa daayira bépp di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu ustaas bi doon wax léegi euh, xale la mais am na xam-xam bi rafet na te maa moom lu ci ëpp noo daan wéttilu ko ci jàkka ji jàkka ji wasi ko fajar ëpp lu mu daan wéttilu ak sëñ bi ma dendal di nuyu suñu jigéen ñi saa su programme bi amee ma ñëw toog gis leen ñu toog sama xol dafa sedd ñoom ñooy tax xale yi ñeme mag mooy ñemeel xale su gone toogee mag toog ci wetam xale bay ëllëg day sawar ci lu doon def di nuyu waa daayira yi fi teew yépp di nuyu sunu tànk yi macha allah bëgg naa ci ñoom lool xale yi ndaw sept ans dix ans xool leen ni ñu toogee eh, dal na xel te lii rek lañ ci bëggoon ci njaboot gi yàlla def na ko kon yàlla na yàlla yokk Oustaz Souleymane ñu ngi lay gën bu baax nuyu sëñ Modou Kane mi topp xam ne moo topp si man su ma fi nekkul moom moo fi nekk man li may teew bariwul ndax jot gi mais nag moom fi nekkal eh, yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ci barke yonent bi di nuyu nag xale daayiri bi xale daayiri bi di leen sant bu baax di leen gërëm. di ñaan yàlla seen taxawaay yàlla na ko yàlla yàggal yàlla dafa leen kàttan dafa leen wér te doon leen sutura wax dëgg yàlla lii bu ko ay xale dee taxawal chaque année ay xale yi ndaw yu war a toll ci foo ñu bàyyi ko jublu ci lu baax li nga xamante ni ñu bari bëgg nañu ko mënuñu ko am ñoom ñu di ci góorgóorlu amuñu doole mais ànd nañu nek ben te loolu moy doole andal seen yaay yu bax yi sha allah sawar ci lool biñu len tere te luñu wax ñu dem ci seen alal kon yalla yalla fay leen yàlla yalla fay leen yalla mo am bay yàlla na yàlla fay man damay sant di gërëm rek oustaz ñoo yor waxtani oustaz Souleymane oustaz Habib mi ak ñeneen ñu fi tok ñoo yor waxtani man dama leen sant ak leen gërëm ci taxawaay bi nu mu rafete ak toogaay bi ak pasteur bi yàlla na ko yàlla yàggal yàlla na yàlla dooli leen sutura yàlla yàlla dafa leen jàmm yàlla yàlla may leen wér may leen kàttan ba ñu dem a dem ba mu ëpp doole bayaan bi te incha allahu kon yàlla yàlla dafa leen jàmm xam naa wax ci bañ a gudd ndax ñu ci war a wax daa bëri kon ñu yemale ko foofu rek xam ni ñëpp bég nañu yàlla na yàlla bég ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatulah. ah tabaarakallah Xaas gërëm nañ la sant nañ la ndax lii yaa ko fi taal depuis 2006 dañu sos daayira bi ba léegi moom mii moo ko def. xale yu bëri jàng nañ ci yu ñuy jullee yu ñuy wooree yu ñuy jàppoo yu bëree bëri bëri ba ci farata mën nañ góor ñi ñu ngi ci jàkke yi ñu ngi ci wasifa yi ñu ngi ci xadara yi ñu ngi ci géewu kaamil yi ñu ngi fonk seeni lawraat loolu nag yàlla dina la fay tiyaaba boobu gis nga tey boo amoon fii babi gars yi di babi di saagante di di perpe boobu borom bab bi day yenu bàkkaar ba noppi yaa ñu doog leen a wisal yàlla noonu lay fayee yooyu boo taalee lu baax lu baax loolu yàlla da fay taal ko taal ba noppi ku ci jëfandikoo ndox sunnatan boo jëfee boo defalee yàlla dara maanaam yow lay njëkk a fay jëf di ko defal ba noppi doog yi ciy jëfandikoo kon yàlla fay la yow mënuñu laa sant dañ lay ñaanal yàlla ci xadara bi nga bokk yemoo ci xadara bi kese yow képp waaye koo am ci xadara bi la ko am njaboot yëpp suñu yaay yu nekk ci biir ak mboolem ñu war a sant dinañ leen sant dañuy jox Serigne Kaaw moom it ñu ngi koy gërëm ndax ànd ànd bi rafet na yàlla yàlla fay sunu suñu soppe la suñu wëlëri la yàgg na tey doog a ñëw ak délégation bi mu àndal Serigne Alpha Serigne Baba ak mboolem ñu mu àndal ànd ak njabootam bi yëpp daal ñëw kon mën nga koo fay tabarakallah moom la ñuy jox mu sant mbooloon bu baax ñaanal leen yàlla bu noppee rek incha allah Thierno Cheikh mu ngi doog a ñëw ci genn cat catu kii bi la ñëw mais mu mënul ñàkk moom foog mu waxtaan parce que man daf may daaneel tabarakallah moom waxtaanam dama ko nam day waxtaan euh, ci olof ba ci yàlla dugal ci pulaar nga loolu dafa neex tabarak te maire yi moom lañ sopp xam nga liñ dese ci temps bariwul dañuy jox Thierno Thierno Kaaw mu sant mbooloo bi ci lu gàtt rek ñu dox seen seex bu noppee mag mi incha allah ñu mujjee bismillah Cerno maa ngi lay nuyu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu bu baax barakallahu ci bis bi waaye di leen ndokkeel ci weer bi waaye di leen ndokkeel ci guddi gi fa tabarakallahu comme lu ustaas daane ne léegi ndax arab dafa wax ni xayru kàllaam maa xalla wa dal loolu rek moo ci nekk fa tabarakallahu kàddu yi gàtt na waaye am na njëriñ fa tabarakallahu guddi gi mënoon nañ ko continuer ba fajar ba mi di fekk ñu fi ndax jar na ko ndax loo ci toog toog bi lu muy diire diire ñu la koy bindal yiw te it du bokk ci sa dund ndax day nekk sa bonus kon fa tabaarakallaahu sëñ Maajo ñu ngi lay ziar jëla ndokkeel ci seede yi mbokk yi seede ci yow yàlla yàlla guddal sa fan yàlla yàlla sàmm na sàmm njaboot bi ko defee rek ñu àndoon ak sur le président daayra di xaaj Maxtaar Mbow fa tabaarakallaahu ak sëñ Mbay Jaañ ak it sëñ Alsaan dem fa tabaarakallaahu Alfa Diallo sëriñ Aliou Diallo fa tabaarakallah moom it yaram bee xaw a sëddën bu Baba Gaane léegi la dem ak it ñu ànd ak suñu jigéenu bopp yi suñu yaayu bopp tabaarakallah soxna Adama ak it soxna Ajjuma soxna Mama ñu ànd ak it soxna Xadifaan tabaarakallah ak it mbokk yu tedd yi na àndal yëpp soxna Amina fa tabaarakallah li tax ñu leen di lim dañu nekk ay jàmbaar loolu ci daayira bi te ndaw def yiite. nga tudd yite ga mu def daf koy dolli loolu dafay tax ëllëg du naxsaay kon bu ko defee ñu jaajëfal leen bu baax ndokkee leen ñoom it atabaarakallahu ñeneen ñu si bëri bëggoon nañoo ñëw waaye xat-xatu jamono yi ñu si bëri ay tailleur lañ te tailleur ku nekk xam na ni jamono ji seen période ñu nangul leen waaye jaajëfal bu baax a baax aji Souleymane fa tabaarakallahu di ustaas di mbokk di suñu sëriñ fa tabarakallah ndax ñoom ay borom yi taxawaay leen bu ñu gëstoo si xadara yu toll nii gis leen ñu am ci yitte am ci pas-pas di gàgganti njaboot gi kon ñu suñu yaakaar day gën a dëgëral ndax gunaas tolloon ni si jamono boo nee gunaas doo fi dégg sax daayira tey jii bu ñu demee bu fukki daayira lu ko ëpp nekk ci biir gunaas lépp ñuy def seen tarbiya si ëttu maam kër Cheikh Seydil Hadji Malick kon loolu ñoom seen taxawaay ñu ngi ci biir daayira nekk daara boo xam ne ay njaboot Cheikh Seydil Mouhamed El Habib si ibnu Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum moom la ñu yoree daayira bi ci ndigalam tabaarakallaa ñu ñaanal ko yàlla suñu borom yàlla yàlla guddal fanam te yokk ko wér bu ko defee oustaz loolu moo nekkoon kàddu yi mu gàtt lool waaye it fa tabaarakallaa ñu sant lool wa ma zalika alallaahi bi aziz salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cano yàlla yàlla fay la bég nañ bu baax ci kàddu yi du nuyu président bu baax la sunu wëllëre la sunu lépp la wax dëgg yàlla waaw lu jiitu ñuy jox Thierno Cheikh rek dama fàtte ndax daf ma féete ginnaaw loolu muy Serigne lu Touré ndax ñun daayira bi ñu yor moom moo koy waxtaan kon dafa jaadu bu ñu teewee ci kanamu njaboot bi ñu wax ko ñu ngi koy ñaanal bu baax moom it di borom xam-xam di borom cër fu ñu ko yëkkatee moom it mu jóg daayira bi tàyyiwu ci benn yoon sëñ Fadilou ñu ngi lay jaajëfal bu baax. macha allah Fadilou ñu ngi lay nuyu di la ziar mel ni dafa am lu ñu fi dab tuuti rek laata ñuy jox Thierno Cheikhou mooy ñi fi nekkoon ci xadara bi ñu daan àndal teg ñoom te tey ñu wutu jotaay bii jiital ci bu baax kuñ dul fàtte muy Serigne Bokar Kéy ñoo xamoon ko mu nekkoon kenn ci ñu nekkoon gaynde ci tarixa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nekkoon koo xam. ñu mënuñu sori ci moom ñun ñëpp xam nañ moom ak suñu baay Moussa Kelly ñun ñëpp yàlla jële leen na fi ak suñu yaay Ndey Sàll fi la daan toog nekkoon ak ñu ci jotaay bi ak mboolem ñi nga xam ni nekkoon nañ fi ñu daan àndante ak ñoom ba tey ñu jóge fii yàlla noonu lay defee ay mbiram ñëpp foog ñu nangu ko jaamu yàlla rek moo fi nekk nga xam ni àddina suulante la muy jeex kii di suul kii kii di suul kii ba keroog muy jeex. sas dañu seq lu rafet ndax loolu rek mooy defar àddina mooy defar alaxira tey ana sunu bàyyi ñu nekk lool dem nañ suñu yaay yi ñoo fi des. lu mu yàgg yàgg yàlla na yéex dañuy dem ñu ñu topp ci ñeneen ñoom kon yàlla yàlla rafet def lu rafet barke si doom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa dañuy jox Thierno Cheikhou mu dugg ci kàddu yàlla xam ne bëgguñu ko woon nee suñu yaay Fandou fàtte nañ ko fii la doon toog ci jotaay ndeysaan mu yaay Serigne Alpha Ibrahima Diouf waaw di ku baax ndeysaan ñoom ñëpp boole ñu yar teete ñu daan jàpp ci bis bu xadara bi Moussa am jàppoon ci ñi ma lay limal fii ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ñun mënuñu toog sax di wax seen tur ndax sori gi ñu sori ci kon dañuy jox Thierno Cheikh rek mu waxtaan ak njaboot gi bu noppee rek incha allah ma xaaj ma di ñu mujjee bismillah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 رضي الله عنه ورضي الله عن خلفائه ومقدمه وتلامذته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نحييكم بتحية الإسلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جناو سنت يلا ak julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi nuyu دي bi yëpp di ziara seeni kilifa yi seeni yaay yi seeni rakk yi ñëpp fa tabarakallahu ñu ngi leen di ziyaar bu jiital si nuyoo bi seeni bàyyi fa tabarakallahu président daayira bi ñu ngi koy ziyaar ba baax seeni bàyyi maajoor fa ñu ngi koy ziyaar baax a di kontaan bu baax a di am mbégte ndaxte suñu borom tabaraka wa taala bu la defalee xéewal da nga war a sant yàlla ndax yàlla moo ñu defal xéewal xeetu yonent bi sallallahu yàlla dafa def leen defar ay xewal yu bëri ba tabaarakallaahu jël weer bu gën si weer yi jox leen jël li nga xamante ne téere bu gën si téere yi mu jox leen jël guddi gën si guddi yi mu jox leen kon loolu ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax fa tabaarakallaahu ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax yàlla def tamit fa tabaarakallaahu taalibi seex yi yàlla jox leen tamit sëriñ bu gën si sëriñ yàlla jox leen dariika bu gën si dariika yi loolu sant yàlla ndaxte ben la way dama dégg mu tarikh tarix tarikh fa cheikh jambi radi allah taala fa la ko yàlla waxee si alxuraan ndeysaan ndaxte jang ak deg du ben yalla lu mu wax yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wa anzalnaa ilayka dhikra li tubayyina linnaas wa anzalna ilayka zikra yalla mun man ma wacce ci yentik sallallahu bi sallallaahu alayhi zikra zikra mooy lu ñuy wax lu ñuy wax alquran zikr lu ñuy tari mooy zikr kon astaghfirullah zikr léegi nag li tu bayyi na boo ko bëggee génne lazim ak wazifa mu ngi si li tu bayyi na mhm, li tu bayyi na wazifa boo koy def fanweer fanweer per la astaghfirullah lazim lazim ñaata per la da ngeen wax fanweer dégg astaghfirullah lazim lazim ñaata waaw kay lam ñaata la li lam bi génn na muy fanweer nga hmm? koy noon bi cinquante salaatul fati ñaata la aussi bi booy def salaatul fati ñaata ngay def cinquante per ñaata la ba yi yaa bi ak bi baa bi ñaata la mooy deux mooy jafaratul kamaal xanaa amoo dégg-dégg taa bi ñaata la 400 la léegi wasifa bi xam nga andi nga astaghfirullah lazim alasi ñëw na fanweer salaatul fatih bi ñëw na ilaha illallah bi moo des 400 boo ci benn téeméer bi ñaata lay doon 400 boo ci jëlee benn téeméer 300 mooy des léegi laa ilaha illallah euh, wasifa bi ñëw na ñaata moo ñett téeméer moo taa bi boo jëlee benn benn téeméer ñeent téeméer boo jëlee téeméer ñaata mooy rek 300 mooy des 300 yi mooy lazim lazim ñaata la astaghfirullah ñaata la ah téeméer salatul fati ñaata la war salatu an nabi téeméer laa ilaha illallah ñaata la léegi nag ku weddi ne li ñëwul si alquran ku mu jëm ana déggul li tu bayyina gis nga waaye nag gis nga moom xam allah akbar ma kontaan foofu ndax yonent bi sax dafa ne lim naa si yàlla ne ko lii pour nit ñi la astaghfirullah rek pour yàlla jéggal la yonent bi amul bàkkaar ndax la ko na dee jéggale yàlla lu muy astaghfirullah ñuy wax astaghfirullah mu ne astaghfirullah ñu dem ñu koy toppandoo di ko roy di topp si leen mi ñam waaye bu koy nit bayyi na linnaas beneen mané ko benen bi nga ne yonent sallallahu alayhi wasallam euh, du zikru du du wird maanaam wirdul lan la dee wirdu wird kuñ jéggal la moom yàlla da ko jéggal yalla da ko def ku set ku sell yalla ne ko yow aljana nga jëm aljana moy dugg ci yow ndax wax dégg mo jafe gis nga sama waral fuuti yi mos na ko yonent sallallahu alayhi wasallam du dugg aljana ñi fa nekkoon ne ah yonent bi dugg aljana déedéet lolu mënul nekk ma ne déglu leen moo xam ne yonent bi àjjana mooy dugg ci mom <laughs> si si si wax bala ngay weddi da ngay déglu bu njëkkee weddi nit wax ngeen ne amul mu andi arrivé nga ne ah ndeke man ma man maa daanu loolu gars yi di waxee jëlli bi si man la kon loolu nit day bàyyi xel bu baax a baax beneen bi bu ñu dafee ñu weddi tariga bi ñu naan na waa Makka duñ daane ko def waa Makka nu ñu koy defee yàlla defal leen promotion boo rombee kaaba bi kaaba boo ko rombee même bu nekkee da ngay tuuri mbalit dañ lay bindal si yàlla léegi ba déggee da ngay tuuri mbalit boo rombee kaaw bi dañ lay bindal ci yàlla loolu jàng nañu si téere boo duggee si kaaw bi wër loolu waxuñu ko léegi ku am formation boobu ko lu muy dee astafurlah lazim alazi kooku amul lu mu koy dee ñun ñoo ko war a jël ndax Seydina Umar yàlla fu mu waxee wal xayla wal biraara wal xamiira zinatan wa yaxluqu ma la taalamu mooy aaya bi ku nekk si jamono bi mënu dégg aaya boobu wa yaxluqu maa laa taalamuun yàlla mu ne gis ngeen mbaam yi ak fas yi dégg ngeen ak mbaam pucc yi mbaam yi ndaw yi du mbaam diggante bi waaw mbaam pucc waaw du mbaam du fas mertel akaza merci kontaan naa ci yow nii la mertel exactement mu ak mbaam yi ak fas yi yooyu bu fekkee ne ñëw ba noppi dégg nga yàlla mu ne wa yaxluqu maa laa sàkk naa yeneen yi nga xam ne ay waruwaay la mais loolu xamoo leen ko sëy daa war mu ne jamono bii jamono bu nekk nii déggul way xolu maana taalamu na waaye ñun suñu jamono bii dégg nañ ko avion am na boobu avion amul woon oto am na da nga yegg oto léegi léegi nga ay korosma kambre léegi léegi vingt minutes bu embouteillage amul de gis nga léegi teer bi ñëw na mu ne aaya bii jamono bii kuy dégg aaya bu amul ndax wa yaxluqu maa laa ta'lamuun yàlla dina dinaa sàkk loo xamante ne xamoo leen ko kon fa tabaarakallahu maa ngi ànd ak sama xarit fa tabarakallahu sama doomu ndey sama lépp nu ko gars yi di waxee sama kol kirisi waaw muy Abdourahmane Ndiaye fa tabarakallahu ñoo defandoo lépp ñoo jàngandoo si daara ji ñoo defandoo lépp fa tabarakallahu vingt ans ñu ngi nekk soxnaam bu mu jël soxnaam dafa dem gis nu ko sama sëriñ waxee woon ba ma tànnee soxna mu ñëw ne ah mu ànd ak ànd ak soxna si foofu mu ne yow kay ndekkee du wird bi rek yoo koy def gëm man a ne ah mu ne boo tollee si ut soxna da ngay sa bët nga xool nga xool xam nga nee nañ xool bi def aram mais da nga xool yow am na li nga ut yow bokk ak ñële déedéet ñeneen am na lu ñuy xool yow da ngay xool pour tànn booy tànn nag da ngay xool xam nga buñ fi yeewoon xar kuy tëbës bi doo xool kuy bu gën a yooy bi nga bi ñaata la kuy bu gën a yooy bi da nga koy romb yow xool kuy bu gën a taxaw nga tànn ko soxna tamit ñàkk fayda waaw boobu bëggee tànn soxna da ngay ah tabarakallah doo jël xaalis bëri def si loo boo ñëwee ñu naan yaakaar ne kii maire bi la loolu baaxul ah ñu ne benn xarit mu benn xam nga mbirum daara rek xam nga daara ngaa di mu ko xam na ne si la kooku ne ko xanaa kii mu maire bi moom ah mu ne kii diw de diw ba def neexuma de diw ñëw ba fii naan ndax kii maire bi sama soxna lay boole san ma ah kon soxna si la man tamit ma ne ah soxna si la bañ génnee ci biti ma ne vraiment mu nekk wax dëgg sa poos xanaa xulli sa mu ne xool naa waaye xam naa damaa gëlëmoon sa bopp man xam naa stress moo la jàppoon bi bu def loolu dafa ne demal ba Gàmbi nga xool am na lu ma gis Gàmbi mais ne wax ay waajuram wax lépp nee ma bu la doyee yow sëñ bu la doyul ma xam nga loolu cofeel la ak wóolute ma demee ma xool ma ne ko sëñ bi bu mu yónnee wu càng léegi dama takk sëy ndax la ma gis moom fa tabarakallah lii moo dakk teer bi sax lii moo ko dakk mu ne ah ma ne ko waaw lii moom fa si la jëlee loolu kon loolu wóolati la tey ñëw ànd fi ñoo ngi jéggalu bu baax a baax waaw di am mbégte di nuyu ustaas yi fi nekk yëpp nag di nuyu tàggatu di sallallahu alayhi wa di nuyu suñu ustaas bu wax léegi bu daane léegi kaddu ndaxte kaddu day gàtt fi fii mënuñu fi bàyyi waaw fi mënuñu fi bàyyi de fu mu mënta ne mënuñu bàyyi fii waaw nit am na loo xamante ne nit da fa tabarakallah loolu moom foofu la ñuy yem nit moom am na loo xamante mënoo ko bàyyi waaw fii gunaas mënuñu bàyyi fii ndax fii si lëpp fii la si lëpp fii la kon nag boo leen jëfle ñu jëflante ak yéen ba yàlla def lii fu ma mënta nekk si les sukat yi dama ñëw mu ngi nii si les sukat yi lañ jóge léegi mais dama ne fii mënum bañ a ñëw ba ma eggee fii dama sant yàlla laaj ko bañ eggee fii dama ne alhamdulilahi rabbil alamin comme egg nañ fi ak jàmm kóllëre bi mot bu ma egguloon fii rek fa tabarakallah maa ngi wax oto borom oto bi dawal loo daw xem naa ma ne bàyyi xem nag balaa ngay daw bu ëpp loolu tamit soxla wuñ waaw daw bu ndànk ak xel ñu egg waaye am na moom ren ma déet tey guddi leeg suñu kadir la tey moom ku génn àdduna ma ne déet buñ ko nit dinañ la ko wax rek ku génn àdduna déet xam nga seen sëy nu taal noonu daan def seen sëy nu day jàkkaarloog mag yi toog mu ne yéen ñëpp yàlla na ngeen dugg ay jën ñëpp ñu ne amin mu ne yàlla ngeen dee léegi ñu ñëpp ñu ne ko mu ne ah, ah boo leen bëggee dugg àjjana xam ah, il faut dee boo dee doo dugg àjjana xanaa nga def na séeréer bi defoon am na sa mbokk séeréer yi na séeréer bi defoon séeréer bi dafa ñëw oto laal ko tip oto laal ko dem moom ñu hôpital hôpital séeréer bi nekk dugg na nekk si hôpital bi xam nga mu nekk hôpital bi kii kilim yi ak yooyu xam nga day sedd mu séen mu jékki-jékki mu yeewu si kii yeewu si na si si coma bi mu gis médecin yi dem ak seen yére yu weex ak nangam nangam mu jékki-jékki benn médecin a mu jékki-jékki keneen rombat ko mu ne ko nii keneen rombat mu xool kooku ak balaa yi kooku jaarul demaat mu naan ni mis wi ngi nek ak dom ji dom ni nekk sa topa loolu la mu ni ak ah, ngor man de kon yaa ngi nii ngóor man de kon maa ngi bir aduna ba de ngor man ko man ma ngi biir àjjana kon nak ko tabarakallah aljana du yombee noonu il faut nga lëf kon nag bu ñuy jógee si loolu ñun ñëpp nañu nañu nañu ragal yàlla baax a baax nañu yokk ragal yàlla di jaamu yàlla loolu mooy jëriñ nit ki kenn bul ko nax jamono bii bu nangu kenn nax la jamono bii bul nangu kenn nax ndax naxaate dafa bëri jamono bi nit jëy ñëw ah, man jamono bi laa gis nit taxaw ne man sëriñ la jamono bi rek laa ko gis te sëriñ buñ doon jàngat tuur bi borom xam-xam ni tasawuf ñu ne cheikhul kaamil amul cheikhul kaamil amul de muridu sadiq moom nit mënul mot sa sëriñ tey boo dëkk moom boo toogee moom dina am jikko yoo gis moom nga xeeb moo tax ñu naan sa sëriñ na nga koy sori pare saa yi nga dem nuyu waaye nag toog si sa kanam bi chaque jour nga toog si bi di nga am bis boo xam ne di nga dégg lu neexul si sëriñ kon boo buggee loolu da nga pour nga bàyyi loolu kon murid sadiq amul beneen bu si topp nañu suuturaante seen biir nit day gis nga ñaawteef ku ko def ku dem tasaare kooku moo gën a bon kuy tasaare ñaawteef moo gën a bon ko ko def moom def na ko mais yow dem nga tasaare léegi moom gars yi yal nañu yàlla musal yàlla bu ñu sa ojo walla sa vidéo day jékki-jékki diw yëg nga diw lu mu def de ah ah, ah xaaral ma envoyé audio bi nga déglu <laughs> gis nga xaaral ma envoyé bi nga déglu kon loolu zaharul fasaad fil barri wal bahri guerre yi ngay gis ni yëpp corona yi ngay gis ni ay virus xama corona virus noonu la de man fàtte naa ko sax corona virus boo gisee mu ñëw fii virus di sonal nit ñi ñaaw te fi bëri la suturaan fi suñu biir borom sawu dafa ne nit mastuuril xaari moom mastuuril xaari ki nga xamante yàlla moo la sutura si bëtu nit ñi waaye ku jub 100 pour cent yombul nit yow kenn gàddew la yonent bi salaa salaam yàlla ko doon gar yonent yàlla yuusuf ba Zalixa ñëwee moom ak Zalixa ba mbir mi demee seen diggante ñoom ñaar yàlla la la ko lawlaa burhaana rabbi lawlaa burhaana rabbi bu nekkoon seen ndimbalu borom da def la warul def kon yow nag yow tamit kon ndimbalu borom bu fekkee ne ñëw na ci yow da ngay sàkku ndimbalu borom bi du mu ñëwee ci yow Seydina Ali mu ne mu ne am na loo xam ne du ñaaw njort bañ ko laajee ñaaw njort mu ne am na loo xam ne du ñaaw njort ñu ne ko aha mu ne waaw mu ne njaawum njortu mooy gis lu baax nga yaakaar fa lu bon waaye ki nga xamante ne fii mooy baar bi baar bi fii la nekk baar Jean Paul fii la nekk moom set jours day taxoon dugg si baar bi boo ko waxee mooy damay naan am na fu mu naanee ataaya feneen kooku bu ko nee day naan moo fa dugg lu def si baar bi kon ñu jégal foofu yémal foofu kàddu yi yal na yàlla nangu ñu ngi baalu ak ñëpp nag di baalu ak ñëpp nag yal na yàlla defal jàmm defal sutur yàlla yokk daayira bi daayira yëpp yàlla na ko yàlla yokk yàlla nañu yàlla def ñi nga xam ne dañuy suturaal jullit ñi ñi nga xam ne dañuy yokk jullit ñi yàlla nañu yàlla si ñooñu bu baax a baax tamit beneen bi nañu jàng nañu jàng nañu jàng kenn ku ne am na ki nga jàngal loo xamul sa diine laajte diine duñ ko jëfee ay déedéet loo xamul demal laaj ak pare baaxul xam nga waa ji defoon na ko mu dem fii parc fii parc an mu ñëw gaynde gi mu def nii laal bopp gaynde yow doo seetaan rek nga dem gaynde mu ngi nii seetaan nga dem mais moom mu ne day laal bopp gaynde gi mu laal bopp gaynde gi gaynde gi defu ko dara xamul gaynde kii boo gis bàyyi boo gis bu la bëggee képp dane de gis nga ni koy fiire jàpp ko di nax wala kañ ni nga koy defee ba nax ba jàpp ko noonu la lay naxee ba jàpp la ray na bopp gaynde gi mu ne ray na bopp gaynde gi ñu si dafa am fi daal mu toog mu toog parce que mu dugalaat loxo gaynde gis na la ko bàyyi ko gars yi defoon nañu ko ay vidéo mais dafa jëg ci kay di mu tëbee di képp loxo bi jàpp loxo bi nag loxo mu nekk di yuux la moo ko si jàpp waane dafa waane kooku il est il waane salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal xaq bu baax te di leen baalu te di ñaan yàlla mu boole ñu baal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu imaamu quartier di suñu bàyyi bayi bu waaxu ak topp ci moom di sëriñ ndagga waaxu di leen ziyaara te leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax noonu la ñu nuyoo monsieur le maire mi nga xam ni tabarakallahu mu fi jógee di ko sant bu baax ci ginnaaw mbooloom ci ginnaawam ci kanamu mbooloom di wàcc xadara bu tedd bii nag di xadara malikiya di nuyu di ziyaara bu baax jëmm ji toog di suñu bàyyi ma jom jaay di ko ziyaara di ko jox wàcc waayam li ma waxoon rek laa waxaat mooy mënuñu koo fay yàlla rek moo ko mun fay yàlla yàlla fayal nu ko bu gàmmu Tiwaawan jotee mën na noo wax ni sax day tëj këram moom ak suñu yaay aram song jàmbaar dëgg la waaw jigéenu Serigne Babacar Sy bu mag mooy moom ku jeex tàkk ci Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu wone ko ba wone ko ci wàññi sëriñ Babacar Si fee ca Tiwaawan kon mënuñu koo fay yal nañu ko yàlla fayal moom ak mbooleem njabootam ak njabootu bu baax a baax noonu la nuyoo di ziar sëriñ daam amuñu fayam lu nu xewle jàpp na ci lu nu xewle ñëw na ci lu mën def na ko ci xadara bi ak njabootam ñu ngi ci xadara bi ak sëriñ bi toog sëriñ Moor bëgg nañ bu baax a baax sëriñ Alfa tabaaraka baax sëriñ Kaaw nuyu nañ leen yéen ñëpp ak Maxtar Mbow Oustaz Sall Ibrahima Gaye Serigne As ñoom ñëpp nuyu nañ leen mention spéciale nag sama ñaari séeréer yi toog waaw Serigne Medoune juuf mi nga xam ne mooy président daayira bi ci ndigalu Baye Madior vice président ci taxawaayam bu rafet wutul président bi ci ay kàddu yu am solo ko wàccee ca xadara di ko ziyaara bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla dana yàlla guddal fanam bu baax defal ko wér sëriñ Alpha Diouf tabarakallah moom tam noonu alalam dooleem xalaatam yëpp ca xadara bi mu jàppee ba léegi bàyyi moo xaaj kon ñoom mënuñu leen fay dañuy ñaan yàlla rek mu fayal ñu leen bu baax a baax du nuyu ñu doon tagg yonent bi sëriñ Xalifa sëriñ Omar Azmaysa Ablaye Sam ak tabarakallah ñoom papa ñëpp rek ku leen juum di nuyu Cheikh Mohamed ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne def na ko fi wax yàlla moom tamit kenn mënu koo fay sànq la wax ni moo ñuy wutu di ñu defal lu bare bare lu ñu mënalul suñu bopp noonu lañu ñu nuyoo kuy sono waaw tabaarakallah moom moo yor sono bi Abdourahmane kuy kuy sono wal ko yàlla may matériel bu bari ba mu nekk ca gàmmu yaag yu demee noonu di nuy sunu sëriñ dafa làkkatu te dañ koo gis <laughs> moo nu jàngal bu ñu amee 2000 la jàpp sunu loxo yóbbu ñu Tiwaawan ca xadara ba jàngal nu foofu moo ñu jàngal alxuraan ak sunna moo ñu booleeg Cheikh Sidi Ahmad Tidiane fii Dinaé mu Chamal Tidiane ñu toog kii moo njëkk a jël sama loxo téye ko dugg ak man ba biir Tiwaawan. moom mooy njëkk boole booleeg sax Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi kii toog di borom xam-xam di alim ci fànn yëpp di doomu Tiwaawan di lépp yi Tiwaawan kii toog Cheikh ci Tidiane Ba mi wallahi la wàllu mooy sama lépp la tey bu ñu taxawee fii di wax dañoo siggi rek gis ko ni mu toog ah, ah. moo ma jàngal moo ma jàngal kii moo ma dalal moo def lépp ci fu mu toog du place waaye mu des sax kii nii la mel ah Thierno man gis ko <laughs> di ko baax yar ñu ba nu toll nii wax dëgg yàlla def ci ñun lu bari yàlla xam na ko ci lu bari def ko ci ñun mënuñu ko fay xam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz mi nga xam ne moo jëloon daara ji jox ko Serigne Aliou Niang mu jàngale ko waaye di jiite ci jàkka ji bàyyam nag moo doon jàngale ci daara jooju tabaarakallah kon fa la ñu jàngee lu bari ci moom lañ ko jëlee mun nu koo fay ba tey jël nañ suñu rakk ku mel ni Serigne Maodo ku mel ni doomu jarbaatu Hadj Medoune mii jox ko Omar Sow mi nga xam ne Serigne Aliou moo ko jàngal mu jàngal ko muy euh, jarbaatu Serigne Medoune mii kon mun nu koo fay yal yàlla fay ko waaye ñii lañuy ñuy tëjee jàmbaar yi toog ñii mbokk yi maa ngi leen di seedeel ni képp ku yàlla def nga am woy jur muy dund ci kaw suuf muy góor na ko fonk lool loo mën bu dee jigéen na ko fonk lool loo mën na ko fonk lool lool waaw ndax yàlla matériel bi mu amoon war a jël matériel bi dugal ko foo xam ne da koy jural dara ci jigéen la ko investir moo tax mu ne wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyahu lu mu ci teg wa bil walidayni ihsana waaw ñii mention spéciale suñu yaay ñu toog leen fay yàlla rek moo leen mën a fay moo tax doom bu fontooyee way juróom surtout bu jigéen dafa xamul rek koo xam ni xoolal ci mën niyu la la door ak nga ëmb ko mën niyu chaque weer fukki fan yàlla def mën niyu bi muy deret muy tafli lu ne mu nekk weer fukki fan yàlla def mën niyu bi muy dëtt weer fukki fan yàlla def mën niyu bi muy suuxu yàpp weer fukki fan yàlla dug roof ay yax weer fukki fan yàlla dam dammee yax yi ba boo génnee mu naan lem say cër comme nii ak say baaraam weer fukki fan yàlla wëlbati sa sa sa tànk mu féete kaw sa bopp féete suuf nga gane jamono temps yee passé déggoon ngeen fële ca boori Louga ñu ne am na ku fa doon waaj am doom médecin yi xaw ma lan ak lan ñoo ko doon seetaan faatu na tooli ne pour ci loolu ngeen loolu xoolal kooku jur doom moo ko jëlee bakkanam dem ci kàttanu moo tax ku lay bàyyiloo sa yaay bàyyi ko ak lu mu am même boo takkee jabar mu bëgg laa bàyyi sa yaay bàyyi ko yaay du ko ñuy fonk kenn du ko takkaleeg dara gis nga lu mu metti metti boo nekkee sa jabar ci kër lu mu metti metti sa yaay ngay am lu mu metti metti góor dañ ko bàyyi xel bis boo raakaajoo ba gis jabar ju rabe ju mel ni bëy nga dugal ko jël kër gi mu rajaxee kër ga ñu ne déet mu jël la génne la wut loola appartement sànni loola sa ndey bis dina ñëw wallahi ajib naaka fii buyutu ummahatikum ki la ëmboon ci mettiwaay ba tàngaay ba di ko fekk si bis yaay du ko ñu fonto yaay kenn du ko fonto kenn du ko yàq dañ koy fonk jox ko cëram teg ko fi ko yàlla teg bu dee nag yaay ju am personnalité ci boppam boo amee soxna day maandu sa digganteeg sa soxna bañ a a dugg sa digganteem ak sa soxna ba pare du ca yam loo ko jox mu doy loo te mu xam ne doomu jàmbur nga yam ndax moom yor na doom bu jigéen seneen ñu ngi ko ko yoral waaw mais lu mu metti metti rek pour wax la lu mu metti metti góor nay ànd ak yaayam bu mu mus jeng dem ci jabar même bu amee dëgg bu mu jeng ndax nit du bàyyi ndeyam yent bi moo waxoon aljana ci tànku pegg buy jur la nekk bu jigéen ak bu góor ridallahi ngërëmal yàlla fii ridal mu si ngërëmalu ñaari way jur mu ne suxtillahi meru yàlla fii suxtil waalidey mu si meru ñaari way jur gis nga moo tax nañ ko moy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chrétiens yi ngi leen di nettali Amina dafa faatu bi Amina faatoo kon yeneen bi amatul ndey Amina faatu na ñu jël ko nag daal di koy jox Halimatu Saadiya mu nàmpal gis nga weenu ndeyjoor bi yeneen bi daan seet di ko namp musul namp beneen ween bi ndax maanaam. ñeenti ñii laa lay wax ñeenti jigéen yi ko sekk ñoo seede ci moom Zubayru ibnul Awam Safiya moo ko jur Safiya Abdul Muttalib moo ko jur moom Zubayru mu ngi ci biir eh, bëy yi may waaj a gàmmoo dina ñëw ci kanam Safiya ak Safiyatu Alimatu Sahbiya Fatimatu bintu Ashadin yaayu Seydina Ali ah ak Ummu Ayman ñoo seede ci Seydina Muhammad bi mu nekkee xale bu tuuti yonent yàlla Muhammad gis nga yaayam bu mu génnee àdduna bu ñu wax ay Ayman moo ko boot moo ko yóbbu ca maamam ku ñu wax Shaybatal Hamdi Abdul Muttalib keroog la Abdul Muttalib ñaan ñaan bu mu xam ne moom nee na ñaan bi sax xamul lu tax la ñaanal ko yàlla jël loxoom teg ko ci boppam ne ko yàlla boo séngéem yàlla boo jooy yaay mais heure bi bàyyi yaayam faatoo rek su heure bi ñëwee rek dangay ngay gis yonent yàlla Muhammad mu wéeru ci buntu Abdul Muttalib jël tànkam yi lem ko ba mu tollook boppam mu jël boppam teg ko ci kaw óomu tànkam singem la Fatumatu bintu Asadin nee na moo doon fóotal Seydina Ali doomam moo doon fóotal Seydina Muhammad bu mu nekkee ndaw nee na yonent yàlla Muhammad musul gis ci moom musuñu la nettali jàng gàmmkat yi ak jàngkat yi laaw musuñu la nettali bi mu nekkee xale jigéen bii moo ko dóor ñett ñi ñoo ko seqoon nee na musul jël yat moom Fatimatu bintu Asad yi dóor ko Seydina Muhammad bi muy xale musul fóot fekk ci salte tàndarma wala salte boo xamante ne da ci day nekk di ci fexe ba sol musu ko def beneen bi mooy alimatu saadi wax naa la ne la yonent bi musul jaawale ñaari ween yi ween bi mu ko joon jox muy weenu ndey joor bi ci rek la daan yem bu ko joxoon beneen bi sax du ko jël ndax maandu ndax alimatu saad yoo amoon na beneen doom doom boobu moo doon naa ko beneen ween muy ñaar ñetteel bi mooy sefiya mi jur zubayru ibnul awaam zubayru ibnul awaam yaayam safiya moo doon dem ci toolu abdul mutalib di ratt soow wala di indi di indi ndawal nee na yonent bi bu séddale jotee mu xelli kaasu soow yi xale yi di njëkkante Seydina Muhammad tekk lay def musu ko dóor ci lekk wala naan nee na loxoom ba yonent bi mag moom musul jël loxoom wala mu xoolee yonent bi bëtu yendaan bi gisul kon yaay parce que da doon gelu way juróom bu jigéen ndax bëgg ñu ko bëgg moom Seydina Muhammad sallallahu dafa mel ni da doon jàkkaarloog Amina mu koy tere muy bàyyi te gisul Amina gisul Amina léegi nag jamono dafa dem ba tënk nit ñi sa sëriñ Thierno wax na ko léegi sa sëriñ moo la gënal sa yaay sa sëriñ te sëriñ. Thierno nit ñi dañoo bàyyi dañoo bëgg fàtte xel Thierno Oudou Habib sëriñ al islam huwa al islam al iman wal ihsan yow nooy jeexale goo ihsan nga bëgg a dugg ci tasawuf xam nga li tasawuf foog nga dem ci liimaan ba mu jeex nga dugg ci lihsaan ba lihsaan jeex tawhid xam nga xol chaise bi ci nekk mooy tawhid mais liimaan moo ci toog liimaan pour mu toog ci nag foog nga jeexal lihsaan dañ ne la Cheikh Hadj Malick dafa jaamoon yàlla ba deret amul woon amul woon yaram bi amul woon yàpp nekku ci ko kooku dafa jeexoon tàkk ci bopp ne léegi sëriñ bu koo ci gis muy réyali la ngandal bir. loxo yi rëy mu ne sëriñ laa sëriñ laa mu ne jox nañ ma nangam am daraja nangam ci tarixam xoolal loolu Thierno wax na ko léegi sëriñ sëriñ dañ koy xool topp ko bàyyi ko xel bu defee lu wuuteeg li téere bi kii na ko fi bàyyi te xam ne matul sëriñ waaw na nga ko fi bàyyi te xam ne matul yent bi dafa waxoon ana jaddi kullu taqiyin maay maamu képp ku ragal yàlla mu waxaat ni ana xaatimu nabiyina man maay maa mottali yonent yëpp lu dul ne yonent yépp yëpp tëj naa ko vérifié naa ko yonent dootul ñëw mu ne ana baytul ilm man maay néegu xam-xam maa ci man maay balluwaayu xam-xam yi Seydina Ali mooy buntu kuy root ci man ngay roote te ñii ma lay wax ni ñëpp di wax ñëpp ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu su fekkee ne sax laay wax ni feesal na kon ki ngay topp na ko xam ñii moo xam bu góor wala bu jigéen bu leen jëndee kenn te luñ la digal na nga ko waaw ba mu des tere la julli ak yu demee noonu waaw waaye jur wa da doon julli benn meer la da doon julli di jaay cere wala gerte bi pensé ne tali naa ko ci daari mu ne allahu akbar xam nga julli boo nee allahu akbar yéene bi farata la kabar bi diggante kàbbar bi allahu bi ak akbar bi fa ngay dugalee deuxième farata bi. ah. ah. lan mooy sëriñ d'abord. sëriñ waaw sëriñ mooy koo xam ni teg na tànkam fi yonent bi sallallahu alayhi wa tegoon tànk sëriñ yi léegi dañuy jàpp jigéen ñi di leen bësloo di leen nuyu. maanaam taalibe bi bi wax ni kii sama sëriñ waaw. fan la war a jaar ba kii nekk sëriñ fan la war a jaar taalibe bi fan la war a jaar. jërëjëf sëriñ kii war waaw kay ba fan la war jaar ba kii war a nekk kay dana yàlla fay yaa ngi doog a xam nga garab bu la sutul dégg du la may ker garab bu la sutul du may dafa ak bi ram ram taalibe bi dem ba xam ni moo raw sëriñam teewul dafa toog ci ginnaaw sëriñam loolu baatin bi ci suuf mooy tax moo ko fa bàyyi waaye téere taxul téere taxul xam nga yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummi yu la woon mësul bind te moo ëpp ñëpp xam-xam mooy baytul ilm léegi nag dangay ngay topp koo xam ne yow da lay leer ni ñun suñu jamono dafa metti da ngay topp ku la man mënumaa julli da nga koy dégg man mënumaa jàng yaa ngi koy dégg wala nga xam ni amaluma benn njëriñ mais dama koo topp maa ko raw sax ci xam-xam topp ko kooku nag jaahiliya la koy juumal mooy li aarifuuna yu wax mooy yow yaa ngi woote te li ngay woote xamoo ci dara ñu ne sawara nga jëm ki la wuy te xamul li ngay wuy nag sawara la jëm moo tax ñu ne teelal bàyyi tere yi pour nga mën digal yi aarifuuna billaahi loolu lañ teelal bàyyi tere yi nga mën a bàyyi nga mën a matal ndigal leer beneen bi mooy boo duggee nag ci farata mooy boo kàbbaree yaa ngi ci farata yéene bi farata la kàbbar bi diggante kàbbar bi ak akbar bi foofu ngay dugalee deuxième yéene bi fatiha bi ngay tari farata la rukun bi farata la siggi ci rukun bi farata la sujjud siggi ci sujjud bi farata moo tax waroo cee jaay waroo cee wax waroo cee mool yang saya nga gis di juli ba aku buka bëgg a jaay gerte wala kii allahu akbar jàngu fatiha sëgg maam gerte gi lu muy jaar juróom fukki dërëm nga ni ay waay maam mairie dañ koy def wala ngay jaay cere nga ni suñu yaay si gën ñu ne cere sa da yokku nañ ci cent franc waa bañ mu allahu cere ñaata fukki dërëm ñaar ñaar fukk waay léegi yow mënoo di communiquer ak yàlla bëgg a communiquer ak ak kii jaay kii jënd moom bu defee loolu day yàqu jur waaw day yàqu jur moo tax yàlla dafa ni nag ginnaaw boo ma jaamoo ba nopp na nga topp say woy jur waaye buñ la teree julli waaw buñ la ko tere mukk kon loolu moo nekkoon message bi ñoo ngi dugg ci gàmm bi balaa fajar gi moo jot beneen bi mooy nañu xaar xaaj iran nee na xëdd yu am solo lañ fi def te yéen a tax ñu def ñu def ñu def ko fi pour ngeen mën koo jëfandikoo tey nag ñoo ngi jël buntu bi nga xam ci Alxaaji Malick suñu jàmbaar ja yal na yàlla fayal wallaay comme sonu weddi tey fekk si nga ko dafa ni moom fukki fan yi des ci ci guddi bi دافاي وور تي بير تي بير نيتي فاني تا موي القران انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر لون تي تك ليله القدر موي نيتي فاني تو موتا نو مو اندي نيو غاداي بيغا خاندي نبي صلى الله عليه وسلم غادا يون نكو جيم مدينه اك نيام فاتازيان مو ني وقت كسا زبير رسول الله صاحبه إذ لقياه برعب آب من سئم يعددن كل غداة أو يرداهم حر ظاهرة أهل التأ بالحرم تحلبوا ذات اليوم لبيوت وحد رعى نبي يهوديا على الأتم ناداهم خائلا قد لقى جدكم خاموا إليهم في سلاقهم شال الحاج مالك يلا نكو يلا فايل موها نك إزلال سيدنا بوم مومو تي إزلال سيدنا الصديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل اللمم وقل أمم لمم لا وقل أمم لمم لا يدري صلى الله عليه وسلم سنان شال حاج مالك نينا بي يالا توغي مو تودو مكه يارو مكه jànge Makka risaala bi wàcc Makka mu war a jóge nag Makka ñu xatal ko fa mu war a nag génn dëkk boobu yàlla da ko njëkk a gàddaay loo ci gàddaayu nattu mu jóge Makka dem fu ñuy wax Taïf macha allah bi yonent bi di génn Makka di dem Taïf ñan la fa demoon fekki mu ne xam naa ñam fa fekk ji woon ay ay ay nijaayam lañu كان كي حبيب لا تود حبيب موم اك امينه ньо بوك بن با امينه يمت يالا محمد صلى الله عليه وسلم موكو دي موتام موني كيروك بيما جيني نا تيونا جاب كو مو ديلو نا تاو جين مكه بور ديم تاي مي خول لي كو ديف تاي كوم سي نون محمد صلى الله عليه وسلم دنجا ساندي خير xatal ko boole koog ay dof ak ay xaj ñoo ko topp moom Seydina Muhammad te ñett la fa doon seet muy Habib mi nga xam moog Amina ñoo bokk benn baat yàlla nag def bi Habib njëkkee jënd ci jotaay yéeféer yëpp wër ko moom moo ne Seydina Muhammad sa woote bii nga woote tey waa mbir waa tey kenn ci ñoom du la jóg gëm la yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam deuxième keneen ki génn mooy Abda Yaali troisième bi génn mooy Mas'ud Abdul Mas'ud ñii ñoo génn pour contre Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abda Yaali ak Habib ñoom ñoo dàq ñoom ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yàlla nag natt ko mu delluwaat makkatal mukarram di ñaan sax dëkk bi nga xam ne fa la dëkk muy ñaan ñu may ko mu mun a dugg mu am garanti pour mun a delluwaat ci dëkk bi defar diine ñu may ko garantie bi moom Seydina Muhammad mu daal di duggaat mag deuxième gàddaay bi nag bi mu sonnee suñu borom subhanahu wa taala nag ko léegi nag dangay ngay génnaat nga gàddaayaat jóge Màkka dem Medinatul Munawwara foofu nag ñaar kenn la àndal muy Seydina Abubakar Siddiq mi nga xam ni yàgg na xam ni bis dina ñëw moom mu wute fi génn dëkk bi ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax mu yaroon ñaari gileem ñi nee na ñetti gileem beneen bi ci ginnaaw la nekkoon keroog moo àndoon ak moom ci xare ci ci ci gàddaay bi ñu bi kon moom jazaat ma jazaat kullal wara bi ñu ñëwee ba war a dugg Medina ci alxaaji Malik radiyallahu taala anhu nee na tabarakallah mu ne Cerno Cheikh nee na dafa war a yeewee ko dafa am fu mu dem <laughs> ah xanaa ñu yeewee ko rek ñemewuñ koo téye ñaanal ko yàlla yal na yàlla dëgëral ay tànkam dégg nañ bu baax sëriñ yàlla yàlla fay na yàlla yàlla taxaw la bu baax a baax ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ku sopp bàyyi Fatima ak bàyyi Roko ya Seydina Muhammad defal nii solo ko ñu màggal bàyyi Zeynabu ka mujizatun ajazat kulla wara. Alaaji Maalik nee na keroog bu mu génnee dëkk bi war a dugg Medina Zubayr ibnul Awaam la dajeel. معجزات عجزت كل الورى alaaji Malick ma jox leen yeneen yére ngeen sol ko معجزات عجزت كل الورى keroog Zubayru moo jël ci njëg yam doon jaay solal Zubairu joxoon leen moom la ñu duggee Medinatul Munawwara. laka mu'jizatuna wara. ca Medina ñay séntu ña ngay séntu ñay waajal ña ngay waajal. dugg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biir Medina. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. Alxaaji Malick nee na jigéen ji doon tëgg tabala ba keroog bu yent yàlla Muhammad duggee Medina naa ko. a way taala albadru alayna keroog ca bis ba man si alxaaji Maalik xam naa ko. laka mujizaatun ajasat kullal wara. alxaaji Maalik nee na ki takkoon boppam ci garab yi juutal bopp bi di tëgg tabala yi mun naa la koo wax man si alxaaji Maalik. laka mujizaatun ajasat kullal wara. alxaaji Maalik nee na noonu noonu ma la koy wax ma la koy wax ba fi jërëm gi yasaloon man si alxaaji Maalik mun naa la koo wax. ku sopp bakka rek dara man aram loo ko ma jàmpaaba du forma jobbu ma penn paata penn xar yàlla ba jobbu dóor. kusidi kazi mali jugal takau toga min magal ba yusri baba karfi kamu jazatun jazat kullal wara mali neena gaay dañuy sentu sentu ba ay midi une heure ñu delluwaat dem añ bu ngoonee ñu ñëwaat sentu waat seydina muhammad la kamu jazatun jazat kullal wara neena yaqdun na ngay sentu kulla hadatin bépp suba la kamu jazatun jazat kullal wara ya raddahumu delluwaat ñibbi ci seen kër ya defar lu ñu lekk. oh laka mu'jizatun ajazat kullal wara. Xaadimaal yi nee na bu ñu xëyee ñëwaat taxaw ci kaw tàndarma yi di séntu Seydina Muhammad. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. Xaadimaal yi nee na jàppee nañ noonu di séntu Seydina Muhammad di ko séntu ba mu am fukki at ak benn. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. nee na ñu koy def ñu ko def ba bis rek Seydina Muhammad nañ pàccax ci fenn. laka mu'jizatun جاز كل الورى تعلموا ذات اليوم للبيوت وقد رأى نبي يهوديا على الأذن لك معجزات عجزت كل الورى تتخلبوا نكوي دف ديكو دف بذات يوم تبس تبين بس تبس لك معجزات عجزت كل الورى لك معجزات عجزت كل الورى jiital na benn yahud boo xam ne daa taxaw ci kaw état sam moo seen Seydina Muhammad laka mu'jizatu mu'jizat kullal wara naadaahumu bam leen seedee naadaahumu woona leen laka mu'jizatu mu'jizat kullal wara bamu leen woowee xaa ilan ñuy aji wuy ji nag ñoom ñi ñu laka mu'jizatu لك معجزات حجزت كل الورى la mag Medina yëg lu ñu musul yëg ci seen dund. maniinu yaa musu ismin maniinun manuunun xayra zuunibin manuunin ku sopp Seydi Xaaji Maalik defal ni sa loxo ñu màggal bàyyi Sëriñ Babacar Si laka mujizaatun ajasat kullal wara. nee na keroog Medina dañoo mujj di jaawale sax kan mooy yonent bi ak kan mooy Seydina Abubakar Saddiq. laka mujizaatun ajasat kullal wara. Abubakar As-Siddiq moo jiital Seydina Muhammad laka mu'jizaatun hajazat kullal wara moo jël yére yi gënoon a rafet ak mantu bi mu yoroon solal ko Seydina Muhammad laka mu'jizaatun hajazat kullal wara yor jikkoy taalibe dem ci ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lakam mu'jizatun ajazat kullal wara. waa Màkk waa Medina nag doog a xàmmee ne kii mooy Seydina Muhammad. wa miftahun wa misbahun munirun jawadun mustafa daf leen ni ñu màggal bàyyi Fatima bàyyi Roqaya ka mu jazaatun la taxaafa bu leen ragal sarr sil yoo xam ne ñooy ayib la ka mu jazaatun ajazat ndax dugg ngeen foo xam te ni jàmm rek ngeen fi am. la ka mu'jizatun ajazat kullal wara. yaa ngeen nekkoon muy waa Makka ñu leen di xeex tey xam na ni yéen waa Madina ñooy taxaw ba dem gañe ji Makka tey. la ka mu'jizatun ajazat kullal wara. yéen sallallahu alayhi wa sallam nag moo taxaw di seedal Seydina Abubakar Sadiq ci kanamu jullit. ey la ka mu'jizatun ajazat kullal wara. yéen a ngi tudd Seydina Sadiq arafuhum ومعجزات عجزت كل الورى إياه قل إنه من أفضل الأمم لك معجزات عجزت كل الورى منجى مرتدا خادم بصير وليس على المغيب بزمينه تخليني مدر طائفة مبروك يا باي أم كرسوم سيدنا محمد أكبا خباي aka baaxi baajan aka baaxi àndandoo rasulullah moo leen teraanga yee xéewal li moo ko waral mooy sunu wasilatu xakkan inna rahman du leen taxaw ca xam magal bàyyi fatimatu ko mujizatun ajazat kullal wara sapp yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëkkati sa loxo ca kaw la ko mujizatun ajazat kullal wara yàlla muhammad jóg leen yeewu bu leen nelaw la ko mujizatun ajazat kullal wara boo xam te ne moom yonent yàlla Muhammad moo ko seedal sëñ Naama. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. sëñ Alfa keroog la wax ni man gis naa àndandoo ba tay man Seydina Muhammad waaye sama ànd ak Seydina Abu Bakr Siddiq musuma gis àndandoo bu mel. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. Seydina Abu Bakr Siddiq aar na ma yiir na ma nangul na ma li ma yàlla defal. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. Seydina Abu Bakr Siddiq moo ci topp. laka mu'jizatun ajazat We Kulalwara. Ande ande jeexee Seydina Abubakar Sadiq ànd naag Seydina Muhammad ba ànd jeex. laka mujizaatun ajazat kullal wara. lan ko li ko yàlla defal moom Seydina Abubakar. ooy laka mujizaatun ajazat kullal wara. moo tax moom dafa bokk ci ñu yàlla garanti ne yéen ci ne ko garanti aljana. laka mujizaatun ajazat kullal wara. asadin mi jur Seydina Ali yéen ci mi nee na bàmmeel boo ko bind bàmmeel boobu kenn du ko bëgg. ooy laka mujizaatun ajazat ذكرت كل الورى لك معجزاتنا جازت كل الورى تخلل نيتي لك معجزاتنا جازت كل الورى لك معجزاتنا Seydina Muhammad moo garanti bàmmeelam. la kam mu di zaatoon hajagat ko lal wara. kon ñii bu Seydina Muhammad garantee seen bàmmeel masama ak yaayam. la kam mu di zaatoon hajagat ko lal wara. xam ne yàlla la ne yow li la bu ëllëgee dinaa la jox nga nga dugal ba doyal. la kam mu di zaatoon hajagat ko lal wara. wala al axiratu xayrun laka min al ula. la kam mu di zaatoon kuulal waraa. kon nag dama leen di xamal ni dara kenn nekk fi ku dul Seydina Muhammad. la ka mu'jizatun hajazat kullal waraa. na keroog bi ñu yeggee Medina nag taxawaayu Medina keroog la yonent bi bëgg gi mu bëgg. muy ëpp ñëpp fit ëpp ñëpp doole ëpp ñëpp njàmbaar lu muy bëri bëri doole suñu yeneen daawul tooñ takku tooñ mu baal la suñu yeneen lu muy bëri bëri doole daawul ñaan takku ñaan mu may la ñàkkul nga neel. تسولي أكار خبل كريم باني نونو على الجنون غاني نونو كريم كبايو غاني نونو سيدنا محمد دفعي ترون مك سيدنا محمد دفعي ترون لو سيدنا محمد دفعي ترون دك لو بلين تخرج قمنا تخرج قمنا تقول غني تسولي أكار خبل كريم لو على الجنون لو كريم كبايو لو سيدنا محمد دفعي ترون لو سيدنا محمد day teral la Seydina Muhammad da koy teral dëkkandoo Aja Sakkoular bi yéen Medina kenn ku nekk ci waa Medina bëggoon na yóbbu yàlla Muhammad dal sa kër laka mujizaatun Aja Sakkoular Wara Cheikh Al Hadj Malick nee na yonent bi bàyyi ndigalu boromam ne ko bàyyi gileem gi fu mu yeesal foofu ngay dal laka mujizaatun Aja Sakkoular Wara gileem gi moo dox dox dox ba yeesal foofu tey ñuy wax masjidu rasul yëpp yàlla Muhammad daal di dal. lakk mu'jizatun ajabatul alwara. tey foofu la ñu denc yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lakk mu'jizatun ajabatul alwara. masjidu rasul ku fa julli ñaari rakka sa yàpp yaram araam na safara. lakk mu'jizatun ajabatul alwara. bi yëpp yàlla Muhammad tëdd ku fa julli ñaari rakka sa yàpp yaram aram na safara. la kaw ci saa toonu ajasar ku lal wara. ñu ñaan képp ku fi toog yàlla na nga dem ziyaara Seydina Muhammad. baay bi si Yusufa. nixmat ah. bi si Daawuda. Ah. guru Suleymaan da. Ah. yeneen moo ko jël dénkaane. yeneen ku nekk. sang-sang yi yaakaaru jaam ñi. soppay suñu maam Seydil Xaaji Maalik mu ngi si yoon bi di ñëw. daanani daanani moo leen jox leen ñuy أنتم مجزات وعجزت كل الورى الحاج مالي نينا لا يخرجن إلهي منك كمن تبعك له الخلائق من جن ومن إذا ما بقول كيف بقول في سيدي سيف يا محمد بقول تقول تقول سارة كل نما قال بايو فاتون بايو ربياني نون سيدنا محمد دولن تراغي خيولي moo ko waral sunu wasilatu xaqan inna rahmaani sayyiduna Muhammad la sayyiduna Muhammad zaahiru moom la la doy ah. na si nga neel ah. asamaan seet sa borom yóbbaale sa jëmm ah. dellu si suuf mu jox la ko dañuy jëli juróom mu jagleel na raw yaa Muhammadu Rasul sayyiduna Muhammad buur bi yàlla boo waxul mu ñaaw yow yaa jaam ñi yow yaa di soppeem yaay Seydina Muhammad sang bi may way feeñul si télé rasulullahi waxul si rajo rasulullahi jëmm si journal te turam doo dul fay yàlla siiwal te siiwal na raw yaay Mamadu Rasul Seydina Muhammad soo ko dem àjjana rasulullahi ka dem àjjana rasulullahi yaa ka dem àjjana ma këri Umar Diop su ma joobe xayru rabbi yaay ku jub taxaw taxaw sara xolle yàlla la dëjee Seydina Muhammad bu leen taxaw ma dem ayu to do this. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أحرج سقه فعذره فاحتثر فاحتوى ويذر فقال الله ولا كل شيء قدير إن الذين تابوا مثقال حبة وآتيناه وكفى بنا خاسبين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إن الله أن تقولون ما لا تفعلون إن الله يحبون يجاهدون في سبيل الله صفا كأنهم بلاد مرصوص وإسحال موسى يا قومي لما لم ولا حتى تعلمون إني أحب الله إليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله والله والله والله لا يحب سليمان di yéen a biir yàqu di. yëpp na yéen mu lépp laa mooy ñoo day déclaré ay mbiram. daan naa nu daan naa ni yàlla jox na ñuy daane. sama Seex Alxaaji Maalik nee na. kii kay moom moo jar. laa yuxrijanna ilaahi. kii kay moo jar. kii kay moom moo jar. kii kay moo jaray nee na Seydina Muhammad kii kay moo moo jaray loo xalaat looy waaj a gis loo gis bu yàlla Rasulullahi moo jaray nee na jinne yi sax ñëw nañ jëriñ ci Seydina Muhammad moo moo jaray nee na jinne yi sax topp nañ Seydina Muhammad Rasulullahi moo jaray Muhammad lañ koy woo kii kay moo moo jaray waa suuf naan ko Muhammad moo jaray

Seydina Muhammad yàpp bi sopp say xol bi sopp Seydina Muhammad yàpp woowu du bàcc yëpp yàpp bu bañ Seydina Muhammad yàpp woowu du demaat chauffeur gi ngay am ci Seydina Muhammad moo lay jiital sa bopp am ci yéen bëgg Seydina Muhammad moo lay mucc Seydina Muhammad boo jullee ci moom benn yoon yàlla julli ci yow ñaari yoon Badru Saraan boo jullee ci moom fukki yoon yàlla jullit yow téeméer Badru Saraan boo jullee ci moom téeméer yoon yàlla jullit yow junni yoon Badru Saraan Aj Maxtaar bu yàlla jullit yow junni yoon doo dem safar Badru Saraan ana Saal Xaji Malik ne yàlla yàlla ñu làq ci diggante yaa سيدنا محمد moo xuus xuusu magu Sénégal yi ci nekk yëpp seen xaar wax ma wax la Cheikh Abdou Khadir Jeylaani li muy rëy rëy rëy rëy yëpp Pape Sarr ma wax la ni Cheikh Sidi Ahmad Tidiane li muy rëy rëy yëpp Seydina Mohamed moo ko papa maa ngi lay wax ni Cheikh Alhaji Malick lu ko saw saw saw Seydina Mohamed moo ko badurun sara leesu jambar ja sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anu ana ñu ko sopp badurun sara ana ñu ko sopp Oustaz Pape Sarr ana ñu ko sopp badurun sara leela yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàll de te suñu yaakaar da lew ko xettali jirim la loolu lay def alal ji noonu la mooy mbiram yërëm ji bàyyi la loolu lay def day teral mat loolu lay jikko ay teral dëkkam Mustafa Mustafa Mustafa waxaat ko aduna mi te suñu yaakaar xettali njirim la day jikkoom alal ji noonu la ay noonu la mel yërëm ji bàyyara la mel ne day teral maam jikkoom la day teral naaw jikkoom la day teral dëkkandoo yàlla jikkoom tar ay mbiram mooy yoon mbaanaanam daanaani yàlla jox nañuy daane. Sëriñ Xaaji Maalik وخلقني وببنته وببانها والنبي مرشد وعباد الخدع وبصحبي وتادي نلوكم ساداتنا اهل المكارم والندى وجوه سرى ليلا تبارك الله وجوه سرى وإذ أتاك نمسر من يخال كلمة سكاك كلمة سكاك كلمة سكاك كلمة سكاك كلمة سكاك إيد خدام سليمان بكبات إيد خدام سليمان بكبات إيد خدام سليمان بكبات أمر بكبات أمر بكبات

yal na fi yaa bépp Serigne Ahmad Abidjan yal na fi yaa bépp Lori Aida yal na fi yaa bépp Serigne Khabib Seydina yal na fi yaa bépp Serigne Khabib Seydina yal na fi yaa bépp Ramadan jam na ma juum aslaaji barika salmiyan yaa ilahi wa wasiyata awaa يالا لين يالا فاي غن دي فاي جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مكا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نكي صوصي نك جيدنا لي ناخ صوص مو دا عندك وعليكم السلام داي عندك صوص دا نكوي كوزي غير بلاي باي فتبارك الله tiim ngeen lu séeréer bëgg nag sëriñ Medoune nga baal tiim ngeen lu séeréer bëgg mbaa du macarona makka tibbe tukulóor yi moom la ñuy ñu ne oo ko makka tibbe de bay baa yoon ñu di bëggee daayere bi yëpp di kontaan di nuyu bopp Oustaz Souley xam naa tey rek daa am fu mu jaar ñàkkul daa gis ak ñoom Aliou si xam naa ko lool ndax tey yëngu na lool sax ak garabu bëm bu rafet وخدم سيرين بدن سيرين ألفا فتبارك الله سيرين إبراهيم كور ميزن جاي كل ري فباديبا سيرين أبلا إسلام فتبارك الله نيلن سنو ياي يالا يالا دفالين جام عند بي رفت نتخواي بي رفت نيال نين ياغ دولين جابود دي تبارك ينتمي صلى الله عليه وسلم سيرين بابا جاي جيغلي زيارة سيرين بدن ملني أسال دفل بدي غرق وعلا دو غرق أستاذ أسمان كيني أيوة لكن لن تدقل ما يدري أن سوس خدي سوس داعرالي خدي سوس بلا ميدي سوس كده يواجه أبغى عن بالي تيجي نزنا أجي خدي وان سوس داو نيجي باري سين كوريا بو وين تليني يا بولم ويليام بن لكن تليني تليني تليني تليني نوبي نه بديجي مجيب مجيب موي تيلو لبنك يندل عندك كلفه مايوه يا رجب سري بابا بابا رجب تيجي قال دار لك مو moo ànd ak wax ndax léeg-léeg nga lekk lu saf kaari faaw nga jàmbat xaw ma nag soos bi daa saf kaari wala saful kaari ay ay mooy daa saf ah yàlla ngeen ko fi teewee na gën i déwén oustaz yàlla yàlla taxawu la moom fu mu nekk rek sunu xel dal na fa nu nekk dan fay mën a doxal ndax yëg nañ ni moom mi ngi fi te bu fi nekkee day matal loo xam ne ñun bu ñu teewoon mënuñoo matal lu ñu mel fa tabaarakallaahu oustaz Aale ñu ngi lay ziar Serigne Ndiaga ñu ngi nuyu ñëpp rek oustaz sa sañ see rafet na allah yal na yàlla defal la jàmm Serigne Ousmane jàppale ma ci micro bi damaa xaw a sonn ah waaw kay lay doog a dégg Sam Oustaz gàmmu na gàmmu lépp man amatul dara nuñ ciy dolli lu dul jaajëfal suñu bopp la kii ñaanal ko yàlla yàlla guddal atam wallahi waxuñu ko nag Baye Madior ngir lim fi toog ginnaaw bi ñu ñaanalee suñu kilifa nag Baye Madior ci taxawaayam bu rafet ci njaboot yàlla yàlla ko jàmm yàlla yàlla guddal atam lool te wéral cëram macha allah wu sëriñ Ablaye dañoo mënut a ñàkk ba nga yëkkati kàddu rek waaye kon sax bu ñu yëkkati kàddu ndax kat wax dëgg fa ne boo fekkee Ali ñu ngi ziar ndax yàlla amul mas. boo mel ni waxtu dafa jot. te dañoo war a dugg xéewal ñi war a xéewal nañ dugg ñi war a xéewal nañ dugg dañ doon téye micro bi rek ngir ñiy lekk pare ñu ñaan ndax kat wax dëgg fa ne yàlla fii li fi mat na sëkk sëriñ Bedu wallahi mën ngaa na sëkk sax yàlla xam na ko ah mu ni bàyyi maa yo fa tabaarakallaahu yàlla yàlla mottali ci barke yéen bi wa sallam ay ziar nañu yàlla yàlla defal ñëpp jàmm nee na bu ngeen noppee ngeen bañ a dem ci biir am na ay soos suñu moom ñi bëgg a ci biir am na ay sos ngeen bañ a ñibbi te xëddoo leen ndax ñàkk a xëdd wóoru dinaa bu ngaa yóbbu ñooñ soow soow ñi ngi jégalu nag wallaay daw nañ ba sonn ñi ngi tuub bu baax yàlla xam na ko mu di def ñaan sëriñ bi ne ñu jàng fàtte ak salatul fatih ayatul kursi qul huwallahu fala ak nas ñu ko salatul fatih waaye ñu yéene ci aadi yëpp yal yalla fajal na suñu haajo yal nañ ko fekkee ni déwén te kenn nak kenn nak baña manki ci barkeen bi sallallahu alayhi wasallam sallam bismillah amin ya rabbal alamin Yiyate ak sing-sing kibinigay Yan utang ko ay